asalaamaaleykum adduna bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di sant ñëpp aussi ci seen teewaay yéen surtout journalistes yi man xaw ma su ma den def lu rëy tey fu ba jëm parce que lii benn affaire bu ndaw la bu ñu bugg a jàllale benn message mais gis naa ne ñëpp tey teew nañ fi ci presse bi te lii lañ doon xaar ci ñoom ñu ngi leen di remercier ah mag Macky wax na ba Koura Ndiaye wax na ba pare euh, moom mooy représenté groupe ji GSM ak groupe Support Sénégal ñu ànd ak représentant waa moom sa réew ñu nekk fi ne ñoom tamit dañuy ñëw jàpp ci combat bi gëj naa wax naam mais lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole dama di ndey di bàjjen di tante rawatina doonati maam ndax ku ma xool tey sama taxawaay di nga xam ne màgg ñëw na ñuy dund nag ci ay difficulté waxuma man sama bos parce que man sama bos defe naa du lu ñu du lu ñu mën a wax parce que jàll na ba pare mu am sama yeneen moroom yu ciy jaar mu metti lool ñii ci biir sëy la ñuy nekk ñi nekk ak seen i nijaay ñi nekk ak seen maam ñi nekk ak seen i jarbaat ñu gis ne ku ci mel ne kaaw ay ñoom bintulum ñi paase ak xale yu ndaw yu tuut tànk yu jigéen ñi ñi ñuy jël di leen tëddee di leen violé ñu ciy teg suñu bët réseaux sociaux yi di ko jàllale mais on peut rien faire amuñu fu ñu dem mënuñu wax nous voulons juste la justice pour bépp jigéen bu Afrique wala bu boo munte nekk si àdduna parce que ékërëmatu bi suñu borom bi def ci jigéen dafa mel ne nit ñi dañ koy faral di fàtte parce que jigéen dafa nekk magasin jigéen mooy magasin magasin bu mag bi gën a mag bi yàlla sàkk ñu denc ci secret yi gën a sori benn sëru jigéen mën naa takk téeméeri tuba yu góor kon il faut ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si kër yi ak suñuy yaay ak suñuy mag ak suñuy rak ñu jéem a ritaxal dëggante yi te ñu fexe communication am ñun yaay yi ñun doom yi ñun tante yi aussi ñu fexe suñu bopp ba ñu dimbali ñu muy état bi muy kilifa diine yi surtout maa ngi leen ciy woo ndax réew mu am diine réew moo xam ne am na état ñooñu ñoo war a njëkk a jóg pour ñun suñu doole ñu xeex lañu ko maa ngi woo àdduna bi yëpp di woo chef religieux yi di woo kilifa diine yi di woo kilifay caada yi ñëpp maa ngi leen di woo pour ñu taxawal ñu bu jigéen jooyatee moo xam ban buntu lay jaar pour ñu fawal fajal ko naqaram di ci woo nag Ndeye Saly Dieng ministre de la justice ministre de la femme de l' enfant et du genre parce que moom fii waroon na fi taxaw mais ku ne xam ne ne tey la seen ndaje mu mag bi moo tax ñu yemale ko fii kon maa ngi kontaan ci presse bi ñu fi teew ñëpp mënuma lim asalaamaaleykum mbokk sénégalais yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu presse bi fi teew yëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaan ci réew mi di ñëw rekk di leen wax lan moo tax tey jii ñun ñu daje fii nii ah defe naa ni kenn ku ci nekk ñi fi teew nii xam na lu tax ñu daje fi mooy ah, tey jii jigéen dafa néew doole fépp ci Afrique rawatina ak Sénégal ma créé lii tey jii nag pour ñu am justice jigéenu Afrique dama ni Adji Sarr daf nu yëngal mais dafa fekk boobu nu mer dafa fekk boobu ñu ñuy torturer dafa fekk boobu ñu ñuy rey dafa fekk boobu ñuy violer suñuy doom dafa fekk boobu ñu ñuy takk di ñu di ñu toroxal te ñëpp xam ko ci àddina war képp képp Afrique dafa doy dañu bëgg justice pour suñu bopp dañu sonn ci ñu ñuy use dañu sonn ci ñun jigéenu Afrique bu ñu soxlaa di ñu utiliser dañu bëgg ñu jox ñu sunu àq ak sunu yelleef ba bu ñu amee lu ñu naqari justice taxaw ci loolu moo waral sunu teewaayu tey fii te di ko ñaan ci afrig gépp ndax fépp la jigéen bu ñuul sonnee amuñu baat ñu bëgg nag di ko wax bépp koo xamante ne ni yaa ngi nekk ci boppu réew ci Afrique foo mën a doon ñi ngi lay ñaan bu ñu amee lu ñu naqari ñu taxawal ñu ci ñun ñooy yaay ñun ñooy maam yi ñun ñooy tante yi ñun ñooy bàjjan yi te amuñu cër bu ñu amee lu ñu naqari dañuy dem sëngeem jooy ba suñu xol sedd tey mën naa sol nii ma solo toog mais tey am na sama moromu jigéen bu sëngeem di jooy tey am na moro sama moroomu jigéen bu yor bokk doomam taxaw di yalwaan tey am na sama moroomu jigéen boo xam ne tey mi ngi ci kaso bii tëdd amul baat kenn xeexalu ko. tàccu leen loolu tey jii nii. Mhm. aji Sarr dafa nekk sunu doom yaayam dee ñun ñii yaay ñu am doom yu maaseeg moom tey bu ñu dee woon lii mooy am ci sunuy doom ñun kon réew mi dañ ñu war a jox gëdd dañ ñu war a jox sunu cër dañ ñu war a jàppale jigéen bu taxawee. ni la danga ma def dara yow ku góor ki setalal sa bopp pour ñu jox ñu sunu cër sonn nañu tàyyi nañu di ñaan lii xew barki démb fii 14 doomu jigéen dee ci ñi ci dee jigéen na leen jur tey ñu ngi fii di wax mais seen yaay yi seen xol yaa ngi metti bu ñuy lekk di xalaat seeni doom bu ñuy bu ñuy tëdd di xalaat seeni doom te yooyu yëpp war na am justice ñooñu dee nañu xamuñu lu xew sénégalais amul ku bëggut a xam li xew ci Adji Sarr ñëpp ñoo ko bëgg a xam pour ëllëg sunu doom yi di ñëw ñu mën a am paawa te jigéen bu amul paawa ci réew réew moomu ci dëkk-dëkki lañuy dëkk dëkk naa Amérique vingt cinq ans avant ma fay dëkk dama wër monde entier xam ni réew di doxee Sénégal ni ñuy def jigéen metti na ak Afrique may ñaan nag lii li tax ñu woote ko xam naa ni ñu bari dañu yéex a ñëw mais xamoon naa bu ñu toogee ba mu yàgg heure beeg yooyu te bëgguñu fi guddee di wax ni justice rek moo ñu fi tax a taxaw pour bépp jigéen loolu rek lañ doon ñaan moo tax ñi ñëpp ñëw fii ñu ngi leen di ñaanal jàmm di di di gërëm réew mi yëpp di wax ni jàmm rek lañu bëgg ci réew mi bu ñu sañoon réew mi day melo ndax boo génnee ab fii nii senegal réew moo taxaw ni senegal ñu ne peaceful country loolu bëgguma kenn yàq ko ñun dañu yàgg ci àll bi xëy na at yi bariwul waaye ba ñuy génn fii ay tutànk la ñu woon boo nee Sénégal rek ñu ne peaceful country kon maa ngi ñaan peaceful boobu yàlla na ko ñëpp jëriñoo te ñu jox ñu sunu cër loolu rek moo taxoon ñu ñëw fii maa ngi ñaanal ñëpp jàmm wasalaam